nañ leen ni amoon na caméra de surveillance yoo xam ne lépp lu fi xewoon wala ku fi duggoon dana la filmer lii sama gauche moo di entrée principale au salon bi mu la ñuy tijji parce que salon bi en même temps kër la automatiquement gis ngeen bu buntu salon bi tijjee ko caméra de surveillance premier mooy filmer kii ñëw ce qui se passe ci biir salon bi beneen caméra ngi nii war ko mën a wone donc la première information bi nga xam ne moom la ñu bëgg war fay nekk mais contrairement li nga xam ne mooy information parce que lu lu clandestine defe naa ni euh, lii nga xam ne mooy avis bu bu l'INEA am seen quittance am seen euh, registre de commerce war na war a mone a ni donc information boobu baaxul parce que lii euh, maison la boo xam ne dafa am pignon sur rue nekk fii contrairement lu ñuy loo ñu bare bare bare ay kilifa yu bare danañ ñëw parce que du lenn loo xam ne dafa nekk en clandestinité boole ci. contrôle corps de contrôle yu état yi lu ci bari dina ñu wàcc si kër gi pour vérifier comme ni ngeen ko gisee ci régie de commerce bi ngeen xam ne moom lañ leen jox euh, bokk na ci muy muy massage muy euh, soin de corps muy coiffure ak yeneen aspects yi nga xam ne moom la ñuy def fii ci kër gi ngeen ko buntu bi du tëju donc euh, xaw ma par ban extraordinaire la la mission bi soxna Ndeye xat yi doon wax Ousmane Sonko di ko def tout le temps maanaam bu ñëwee position bi lay toog yëkkati yére bi. teg ko ci bopp bi mu daal di joxe li nga xam ne mooy ginnaawam pour nu maase ko bien que fii am na table de ma deux trois pas pratiquement buntu bi it gis ngeen ko tëjuwul à moins que ñu xëcc ko donc trois pas moo dox diggante euh, salle bi nga xam ne fala massage bi doon xewee ak li nga xam ne mooy néegu Ndey Xadi kon ñoo seetaandoo vidéo bii nga xamante ni waa ji nee na def na ko dafa dem ci lieu bi def euh, interview wane linéa bi wane registre de commerce bi ñu taf ko ci miir bi sénégalais yi laay laaj nag yéen ñu yàgg dem ci salon de beauté dem ci salon de massage ban salon ngeen mës a dugg gis ñu tafal leen ninea bi walla nangam sàngam bi ci miir bi nee nañu yooyu ñoom dañoo muus dañuy def plan jël seen nit comme ni ñuy defee système de manipulation jaxasewaat xelu askan bi sénégalais yeewu nañu sénégalais yeewu nañu foofu laa yem ak yow man nag. duma la wax dara yow xam nga man xam naa journaliste bii di ko def say dossier yi nga def Liban mi ngi fii ne tekk amaana journaliste nga rek ma am tuuti cër ba ma la jox ci loolu moo tax dugguma ci la nga def Liban ak famille Feu Bocandé famille Feu Bocandé décision tribunal bi ak justice bi yëpp génn na maa ngi document yëpp mais jarul ma ciy dugg nañu informer juste et vrai nañuy wax dëgg te yàlla tax nañuy wax dëgg te yàlla tax te bàyyi di wax lu safaanoog dëgg ngir benn nit ndaxte ay mbindeef ñu ngi ciy loru nañu sóoraale suñu bàmmeel suba xam ne askan bi ñuy déglu ñoo ñu gën a gore askan bi ñu may nopp ñoo ñu gën ndaxte gënuñu leen yàlla moo ñu tànn nañu toog pour jox leen xibaar ngallaawaay nañu xool suñu borom ba lu ñu leen di jox mu doon lu méngoog dëgg dañu seetaani beneen vidéo waaye ndey xadi kër ga daane nañ ko ndeysaan kër ga daane nañ ko. xam naa yëgoo ko R plus 1 la léegi R plus 1 ña ngi koy yëkkati nguur gee ko koy tabaxal traces yi lay effacé képp kenn mënul dugg ci kër googu ne nit mën na fa violer nit procureur musu fa teg tànk doyen des juges musu fa teg tànk ñoom ñoo ne maire bi jëlal sa kër ñu financé la ñu changé ko changé nañ kër gi dem leen ci kër ga nday damal ca kër ga doo ko xàmmee R plus 1 la nday xadi damal ca kër ga R plus 1 lañ toll étage lay doon maire ba amul dara gouvernement bi jox na ko xaalis bu weex tal changé nañ kër ga yépp yow boo duggee ci kër ga doo ko xàmmeeti ña ngi koy tabax. ku amoon sañ ba doxantul boo gisul loolu woo ma ne ma Mollah yaa mun a fen Mollah del wax dëgg. ñoo seetaandoo vidéo bii nga xamante ni kii nga xamante ni mooy Mollah Morgan xam nga lu tax Mollah Morgan man mënatuma ko gëm sama àdduna bi ñu jàppee kilifa. ci affaire trafic de visa moom moo jóg def sorti xamal ni que carrément première tukki caat ak kilifa yaanaama euh, bu kër gi bu Marseille trafic de visa la woon du contrat ci la rakku caat demee woon ak beneen pël Fuuta bi ñu jëloon mu waroon leen jox avance yore leen xaalis moom moo njëkk taxaw wax loolu def ko ñoom kilifa mu dem ba ci biir procès bi ñu jàpp ñoom kilifa mu jóg changer version indi beneen wax nekk seen ginnaaw kon kii waxam jarul dóor nekkoo Sénégal rab nga doon def sa morom yi doon rab yëpp tekki nañu Ngaaka Blindé tekki na Dip Doundou gis tekki na Daara ji tekki na Alaaji Man tekki na PBS Awadi tekki na ñeneen ñëpp tekki nañu moom tekkiwul ma nga toog fële ci benn waañ buñ koy dugal wala benn puxus nekkul Sénégal nekk ci réseau sociaux yi ba ngoon bëgga lor nit ñi ci wax yu dul dëgg kii moom wax dëgg yàlla waxam jarul te dóor kër ga raser nañ ko raser nañ ko borom kër gi ba mu luwee Ndeye Khady Ndiaye xamul woon ni loolu moo fa lu tax Adji Sarr ne Ousmane Sonko dafa egg sama kaw coow li tàkkaret salon ba tëj ci salon bu am agrément salon buy def kinésithérapie salon buy liggéey bërki démb ret au clinique bi euh, def nañ fa ñaawte ba xale bi nga xamante ni lakk ba mu dee te wut clinique ba tëj ndaxte secret Ndeye Khady Ndiaye moo feeñ borom kër ga dàq ko fas yéenetul luwe këram lu jëm ci wàllu saloo de beauté ña fay def ñaawteef loolu boo tax ñu toj kër gi nga naan borom kër gi état moo ko financé borom kër gi su la porté woon plainte waaye jaroo ko muy toot sabab ku yor këram liggéey ba tabax këram bii Sacré Cœur yàlla may ko muy luwe di économiser su tëjee loolu munul dem banque def pare mu yëkkatiwaat këram luwe ko def ko ay néeg kon yaakaar naa ni da nga juum kër ga borom kër ga ba ñu xamee ni Ndeye Khady Ndiaye da doon cagatuloo xale yi ci biir këram boroom kër ga ba mu ko xamee la ko génnee te Ndeye Khady Ndiaye sax wax na la ko xanaa déggoo boobu xaaral ñu seetaan vidéo Ndeye Khady Ndiaye lu mu la wax. yaa ngi wax ci ci diisaayu mbir mi ak ni mu demee fi ngeen nekk yéen ko moom wala nu mu demee. fi ñu nekk nii dañ koo loué. da da ngeen di fay par. dañuy fay par fin du mois te weer bii sax dañ koo fay. ñaata la toll li ngeen war a fay. fii ñu d' accord par moom par te jamono ji li daanaka liggéey. te jamono ji liggéey instant bi dañoo tëj kër gi parce que amuñ fitu liggéey. parce que tey fekk. ne mën hmm, xam naa fi ñuy fi ñuy jeexalee mooy. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo Ndeye Khady Ndiaye ne ne fii dañ ko loué trois cent cinquante mille la ñuy fay jamono ji liggéeyatuñu dañoo kër gi te ngay def massage thérapeutique bi coow li takkee diggante Ousmane Sonko ak Adji képp ku doon dem Sweet Beauty amatoo sañ-sañu dem fa business bi toj na kalaate na yàlla weer na leen kon lan moo fa des ku liggéeyul nooy faye cagatu bi doxatul jaayatuñu kenn je crois kenn dañ koy tëj kon je crois que da ngeen di wax ba pare di weddi seen bopp wala foog ni ñu amul xel ngeen di waxal tey su doon lu legal la am agrément am tekk ci lenn te ñu ne lu ñuy wax du dëgg Sweet Beauty day exister ba tey ji Sweet Beauty day exister ba suba waaye ñu découvrir ni que fi ña fa client ya fa doon dem sax dañoo mujj daw faw faw daw parce que bañ nañu coow li topp leen ña fa doon dem bare na de ña fa doon dem bare na xëy na nag ci ñu siiw ñi ci kii la daanoo muy Ousmane Sonko mais ña fa doon dem bare na de ndaxte ay client am la yor dégg nga ko muy woote kaay ma boole la ak diw kaay ma boole la ak diw kii ku xees la ku njool la je crois que lii mooy raison bi. Toujours dans votre journal People à la nañ dem seetaan waat dellu si